gën a sant sunu boroom mi nu sëriñ bi gën a sant sëriñ bi it mi nu fàggul lépp cant gi it du lu mën a wax ci làmmiñam suñu borom ñu boole sëriñ bi di gën a sant sëriñ bi moom fàggul lépp te teg ñu ci yoon mu ne li nga xam ne moom lañ ci mën a wax ci làmmiñam te mu bëgg leen koo dégtal mooy ngi xam ngeen xam ne mi ngi sant sunu borom mi nga xam ne moo nu booleeg sëriñ bi sant sëriñ bi mi nga xam ne moo nu fàggul lépp te boole nu ci boppam. pàgguteef boobu nag. mu ne pàgguteef boobu nag. أنا تينا أمنا يقين تينا سرين عبد الحكيم تلا سرين أنا الحكيم تلا بوك دابا كو دابا أمو تي لن لو مي سيكي ساكا نانا أمو تي لن لو مي سيكي ساكا أمنا أمنا تي يقين يوم تسك لولو لاكوي فيرندل رك لولو لاكوي فيرندل رك نيكو شيخ عبد الله عليه دي فاتلي نيكو شيخ مامور البصير واخا لاغي ديكو فاتلي لول رك موي لام ko sama xol biñ junjoo sama sama xol. nee na biñ ko junjee xolam. nee na booba sëriñ dalagul alxuraan. nee foofa la ko tàmbalee sàmmee nag. ba keroog. bi mu tàggoog moom. waaye mu gën a gën a waaye mu gën a santaat gën a santaat nag sëñ Abdul Hakim ci li nga xam ne suñ boroom defal na ko ko mu xamal ko boppam mu xamal ko boppam di liggéey boo xam ne di liggéey boo xam ne na mu ko xamale boppam na mu ko xamale boppam ni la ko liggéeyee liggéey yéen wu rafet bu mat sëkk ndax loolu lu yéeme la ndax kenn ku ne ku ko gis ku ne ku ko gis ku ne teg nga sa bët ci loolu teg nga sa bët ci loolu xamal nga sa bopp ci loolu nga sa bopp it loolu sëriñ bi nee na mu gën koo sant. gën koo sant suñu borom. gën koo sante sunu borom. gën gën koo sant sëriñ bi. moom mi nga xam ne fàggul nañu lépp. moom mi nga xam ne fàggul nañu lépp. teel maa yëgal ne. te teel koo yëgal ne. hakim ci fàgguteef yi la bokk. hakim ci fàgguteef yi la bokk. ma dund ak moom noona. nee na mu dund ak moom noona. dund suñu dund gi yëpp. nee seen dund gépp ñu dund ko ci loolu. gën a santaat itam. moom mu xam gi mu xam ci man loolu sama digganteeg moom. Euh, xam gi nga xam ne Serigne Abdou xam na ko seen digganteek moom ci noonu yi mooy li na ci moom Cheikh Amadou Mountakha loolu de bi nee na xam koo da caa gën a santaat bu baax. xam googu mu ko xam. nee na xam googu ko sëñ Abdou xam. ak cant gu rëy lay dolli ko ci diggante moom. nee ak cant gu rëy la dolli ko ci diggante moom Serigne moom Mountakha. ni ma koy tegtale rek ci sama diggante moom benn ci benn baat rek. nee na ni mu koy tegtale rek ci seen diggante ci benn baat. moom dama ko mayoon sama bopp. sëñ bi nee moom dafa mayoon sëñ Abdou boppam. te yàlla rek nag tax. te yàlla rek tax. noonu laa dundee moom. nee noonu la dundee ak moom. nu bokk ci am yëqin ñun ñaar. ñu bokk ci am yaqiin ñoom ñaar. dundin ba yomb lool ci ñoom. nee na dundin lool ci ñoom. loolu eh, googu cant. nee googu cant. daf koy seeral rek sunu borom. nee na cant googu da koy seeral rek sunu borom. di ko seeral rek sëriñ rek sëriñ bi. bi muy borom liggéey bi. di santaat itam sunu borom. di santaat itam sunu borom. di santaat sëriñ bi. di santaat sëriñ bi. ndax lépp mooma. ndax lépp mooma. ci njabootu sëriñ Abdou Hakim gii. ci njabootu ndax ñoom. ndax ñoom. sama xel daal na retiix ci ci ñoom ci teewu sëriñ Abdou. sëriñ bi nee na njabootu sëriñ Abdou Hakim gii. xelam dal na rëtëx ci ñoom ci teewub Serigne Abdou. ma am yaakaar ci ñoom yaakaar ju mat sëkk. nee na mu am yaakaar ci ñoom yaakaar ju mat sëkk. lépp ci teew lépp ci teew. ni nii lii sunu borom dogal. lii sunu borom dogal. sunu borom moo xam. sunu borom moo xam. moo xam nu mu ko defee. moo xam nu mu ko defee. دهور ناني واي نانا دفور ناني سيدي عبد الحكيم مو يموت كناو سيدي عبد الحكيم مو يموت كناو لولو تاخ سي دوندم نانا لولو تاخ سي دوندم سما خيل دالون دا سيخ خيلم دالون دا سيخ خامني بوكو بوكو بايي كناو خامني بوكو بايي كناو لما بغ ليب لما بغ ليب سي ليغي بي سي ليغي بي ليب دا يوم سي مو lépp dana yomb ci moom. dana ko def na mu waree itam. dana ko def na mu waree itam. ndax loolu bind la ci moom. yàllaa ko ko bind. ko bind. waaye nag suñ borom moo xam. waaye nag suñu lii bett na ko lool. waaye alhamdulilah rabbil alamin. waaye alhamdulilah nangu gim nangu dogalu suñu suñu borom.

xam ne yàlla xam moo xam li muy def moo xam li muy def te am na yëg am na yëg am na am na yaqin ci ne te nee na am na yaqin ci ne sunu borom sunu borom lu mu def lu mu def ak defar ak defar rek lay doon dana di wax ne sunu borom nee na dana di wax ne sunu borom moo nu gën a xam sunu bopp moo nu gën a xam sunu bopp waaye moo nu gën it ci sunu bopp waaye moo nu gën it ci sunu bopp nee na kon nee na kon léppam ak cant rek lay mën a doon. ndax njabootam gii mu fi bàyyi. ndax njabootam gii mu fi bàyyi. na yaqin ci ñoom. am na yaqin ci ñoom. bi leen sunu borom booleeg Serigne Abdul Hakim. bi leen sunu bàyyi leen fi njabootam gii. bàyyi leen eh, te la nekkoon ci moom. day. am na lu nekk ci ñoom. am na lu nekk ci njaboot gi. loo xam ne bàyyi na ko fi. loo xam ne bàyyi na ko fi. kon loolu moo tax. kon loolu moo tax. sama xel dal ci ñoom reteex. xelam dal ci ñoom reteex. loolu yàqin laa ci am. nee na loolu yàqin la ci am. kon nag ñoom ñii. nee na kon nag ñoom ñii. xaasal leen ngeen ànd ak ngeen ngeen ànd ak ñoom. yàlla xaasal leen bokki taalibe yi ngeen ànd ak njaboot gii. ginnaaw sëriñ Abdul Hakim. ginnaaw sëriñ Abdul Hakim. gannaaw ba ngeen santee. gannaaw ba ngeen santee. ci li leen suñu borom defal. ci li leen suñu borom defal. ngeen gannaaw ba ngeen ko xamee. gannaaw ba ngeen ko xamee. jëfee rek ci des. góorgóorlu jëfee rek moo ci des góorgóorlu rek. góorgóorlu rek moo ci des nañ góorgóorlu bu baax. la la lañ ca mën a yëngutoo. lañ ca mën a yëngutoo. ci li sunu borom defal ci sëriñ Abdou Hakim. mooy nu góorgóorlu bu baax. bu baax a baax. góorgóorlu ci njub bu baax a baax ndax moom yàlla da ko bindee. ndax moom yàlla da ko bindee. te njub. te njub. lépp lu baax. mooy buntub lépp lu baax. mooy buntub diine. mooy buntub diine. mooy buntub taalibe. mooy buntub taalibe. mooy buntub te jikko yu tedd yi. mooy buntub jikko yu tedd yëpp. jub bu jub amee. bu jub amee. yooyu yëpp day yomb. yooyu yëpp day yomb. loolu nag bu loolu nag bu àndee. jëf yàlla jëf jëf jëf ju baax. mooy doon jëf ju baax. ju sell ju sell. ju sunu borom bëgg. ju sunu borom bëgg. borom tànn. ju sunu borom tànn. kon nanu góorgóorlu ci njub rek. kon nan ci njub rek lu mu ciy teg ñu door ko bu góorgóorloo ci njub. bu góorgóorloo ci njub bu noppi. ba suñu xel dal ca. ba suñu xel dal ca. fonk suñu ndigal dana yomb lool. fonk ndigal dana nu yomb lool. te ndigal yi. te ndigal yi. ndigal yàlla ci jiitu. ndigal yàlla moo ci jiitu. topp ndigal. topp ndigal. topp ndigal yàlla yi kem kattan. topp ndigal yaay yàlla yi kem kattan. wattandiku tere yàlla yi kem kattan. wattandiku tere yàlla yi kem kattan. loolu. ku am ku sa xel dal ci njub ku ne. loolu ko sa xel dal ci njub ku ne. loolu rek ngay daal di song. loolu rek ngay daal di song. góorgóorlu ci góorgóorlu ci bu nu ko defee. bu nu ko defee. góorgóorlu bu baax. nu góorgóorlu bu baax. yittewoo sunu diine. yittewoo sunu diine. jéem koo xam. jéem koo xam. lu nu ci sunu borom cërale. lu nu ci sunu borom cërale. fonk ko bu baax. nu fonk ko bu baax. di ko jëfee sunu kem kattan. di ko jëfee sunu kem kattan. ak taalibe. ak taalibe. dara du sotti lu dul moom. dara du sotti lu dul ak taalibe. mooy tax sunu borom sa lislaam. mooy tax sunu borom nangul nu sunu lislaam. mooy tax sunu borom nangul nu sunuy jëf. mooy tax sunu borom nangul nu sunuy jëf. moo nuy may yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira moo nuy defar tey moo nuy defar ëllëg moo nuy defar tey moo nuy defar ëllëg loolu loolu lañ cay daal di yëgee lañu cay daal di yëgee mooy texe rek mooy ak texe rek bu jëm àllaaxira li ma bëggal sama bopp rek laa bëggal nee na li mu bëggal boppam rek la nu bëggal xamit bu ma koy sotti ci yéen. nee na lim xamit bu ko mënoon da koy ci noonu. ni muy doxee dañ koy ànd. ni muy bu sañoon dañ koy ànd. ndax yooyu ma ndax yooyu mu wax. noonu la. noonu rek la xeeb naa ci sama bopp lool. cee xeeb boppam lool. nii wax rek ci laa ci nekk. nee na mënu wax rek ci la ni ci la ci nekk. sama xel bu baax. nee na xelam dal na bu baax. ci ci njabootam gii nekk ci seen kanam. yéen it fekkoon na. nee na yéen itam fekkoon na. ndax ahlul minan mën nañoo taxawal njabootu sëriñ Abdul Hakim yëpp. ndax ahlul minan mën nañoo taxawaaleel njabootu sëriñ Abdul Hakim gépp. waaye ahlul minan fekkoon na. waaye ahlul minan fekkoon na. sama xel dal ci ñoom rek. nee na fekkoon na xelam dal ci ñoom rek ci ahlul minan. ndax ci tawfeex yi sëriñ Abdul Hakim. ndax ci tawfeex yi sëriñ Abdul Hakim. ak xaasam ak xaasam. ci ngeen amee li ngeen am yéen ahlul minan ne loolu nag duy caaxaan loolu mooy dëgg ndax soobu yoon bu baax rek la ndax soobu yoon bu baax rek la yoonu baax yoonu baax moom rek la tur bi tur bi nee na tur bi xaas la juleen ko sëriñ Abdul Hakim xaasale woon موداي نك يوبلوب أدنى اك بوب الاخره كون لا تي ديس رك كون لا تي ديس رك موي بول بول دون اي جوليت فاسيني دون اي طالب فاسيني دون اي طالب فاسيني دون اي طالب فاسيني دون اي نيت نيو يو ño xamne dañuy jëfé jikko yiwi ño xamne dañuy jëfé jikko yiwi moy makarimul akhlaq moy makarimul akhlaq lolu kat lolu kat mom lu ci ñeb hakim baye mom lu ci ñeb hakim mom lañu fi bayil ñëpp nun ñëpp ku sa xol nekk ku sa koo sëñ bëgg sëñ Tuubaa nek na ci sa xol koo bëgg sëñ Tuubaa nekk na ci sa sëñ Abdou Hakim doy na ab soññ sëñ Abdou Hakim doy ab soññ lim la fi bàyyi litam lim la fi bàyyi litam doy na yóbbal sëkk doy na sëkk nee noonu rek la demee jërë ngeen jëf jërëjëf Mbacke nee na xolam sedd na bu baax nee xolam sedd na ci yéen tey door waaye xolam gënaat naa sedd xelam gënaat naa dal yaakaaram gënaat naa dolli ko waaye laxasaayam gën naa dëgër parce que yéen a gën a ànd ak nu itam nag nun njabootu Serigne Abdou Hakim gépp noo ngi doole santaat mboolem lii nga wax nun rekk nga ko waxal Serigne Bassirou waxoon na lépp la Serigne Abdou Hakim jàngale woon ci yow ak la nga jàngale woon Serigne Abdul Hakim waaye loolu lépp danga na ko jàngalaat tey jàng gu yees peq nu bokk ko déggaat nga bokk nu soññaat bokk nu dimbaliwaat man jàpp naa ñi gën a dimbandiku tey ci laa bokk ci jataay bi ndax démb dañ ma àndil photo bee carte bee ñaar la woon bu njëkk ba dañ caa bindoon zur man tuhibbu wa in shatat bika daaru wa xaale min doonihi sahlun aw aru tey ñu bindaat laa yam na na an naka bondun min ziaratihi innal muhibba liman yahwaahu zawaaru te man damaa jàppoon ne boobu man la ñuy waxal si Sëñ Abdou Hakim yàlla dogal gi mu yàlla dimbalee suñu diggante waxtu wu ne ma ni ko jeneer waxtu wu ne ma jàpp ne maa ngi nekk ak moom bayit woo damaa dimbale woon waaye yaa ko leeral tey danoo àggul ci am basiira waaye kon gëm na ni tàggoo woon ak Sëñ Abdou te loolu ci leen mën a jariñoo nun ñëpp nu gëm ne noo ngi ànd ak Sëñ Abdou sëriñ bi nag jàngal nañu li nu sëriñ Abdou Hakim bàyyee nan fas yéene sax ci loola ci la suñu njëriñul tey ak ëllëg nekk nu maasewaat rek ñaanal rek suñu borom mu bàyyil nu fi sëriñ bii mu àggale yéeneem àggale yéene sëriñ Abdou Hakim ndax xam naa ne ñoom fa ñu yéenante woon nañu àndante woon ñoom rek ko ñoo ko xam waaye kenn ku nekk dangaa jàppoon ne sa moroom lay mujj ginnaaw àggaleel la waaye sëñ bi nee na suñu borom la gën def na ko kon foofu la fa la ñu mën a jàngee ci loolu waaye nan fa suñu borom bàyyil sëriñ bii Sering ab naa kéem borom fayal nugo nam ko beugé fofé jërë ngeen jëf sëriñ bi nana da ci am lo xamné nak lamine làmmiñ mëna laal waye serigne bi nana sant na suñu borom bu baax baax ci serigne ab ci bopam dama tëdd guddi gënt mu ñew ci kër gi mi ngi sol completu grand bu bu yor copati ne man day sëñ sidi di ma ne ko ma dama am ndigal bu ma toogee ba yag ma ñëw ci kër gi seet njabot gi ñu togué ak talib yi ñu togué li dé moom moo wax netti naa ko sëñ Seex euh, te it ba mu fa joggé tam dafa ma wax ne ma ngi dem dama bu ma jógee fii damay jaari euh, njaañ xamna naa jaari nga njaañ du dara lu wésu euh, béréb sëñ bobé fa nekk itam defoon fa jàkka ja ko lolo moy sababu si jari nga